nee di njabootu boppam di seeni doom di seen ciini monsieur Abdou Aziz mi nga xam ni lii nga wax ci moom rek lii nga wax ci moom rek nee loo ci wax ci ci rek bàyyi nga tële rek sa diggante yoonu mooy nee délégation nga ànd ak sa jom ak sa ngor ak sa fulla ba tax nga yegg si bi nga yegg si tey ne loolu nag ñëpp la ko seere yàlla dimbali lay li nga am ci réew li nga fi xam ñu ko fi xam bëri te kenn mës sa dégg bi ko wax kenn mës sa dégg lu jóge ci yow kenn mës sa dégg nga wax wax du ñaaw te loolu ñu ngay wujjee ñoo la ko seedeel ndax la Abdoulaye Wade gis boobu président la nga nekk ci opposition bi mu Abdoulaye Wade seedeel la loolu ne ko kay loolu du ko loolu ñun moom la gis teew moo tax ñun ñëpp ñu fonk moo tax cër bi ñu la jox ñu jox la kon ñu ngi la ca dolli ko it mooy nga def nga sédd yoonu murid. loo xam ne moom xam naa ko. loo xam ne moom xam na sa dara. ndax doo nangu mukk. ndax doo nangu mukk. fu ñu koy gàkkale. fu ñu koy gàkkale. wala fu ñu koy woyfale. loo ci dégg. loo ci dégg. nee doo defaat kenn. la nga ca war a dox. da nga ko ca dox. te moom xam na ci lu bari. loo xam ne seere su wér la. nekkul loolu lépp nag. te bi nga sédd yoon bi. xam nañ ko. te bi nga sédd Sëñ Tuubaa. xam nañ ko kon loolu doy fekk ne moom ci jëmmi boppam nag cofeel bi nga am ci moom ak mais bépp xam nañ ne mboolem suñ ci technique ci fonkeel ci sa diggal moom weesu na ko kon ak jantan ceew am na tàmbali waaye amul fu mu yëg mu lay ñaanal rek suñu borom dimbali la